question bi du ku nek lak moy est-ce que Macky Sall mi nekkoon au Sénégal respecte na wa Sénégal bi mu dano premier khalatam moy dem liguey ak Emmanuel Macron njiitu au France nek missionnaire am bu leen fàttali moo président de la République du Sénégal dajale bépp information bu Sénégal am xam lépp loo xam stratégie la ci Sénégal jiite Sénégal fukki at ñaar nekk représentant France ba am ñu ko sax gouverneur de France dina jafe wetti ndax li xam ci doxalinu état boo xam dafa moom boppam ko fukki at ñaar xam ci li ci xam def ci li ci Macky def waroo mën a le lendemain ngay xëyal beneen état nekk missionnaire am di ko doxale ay yónneen parce que li nga xam ci suñu état ak suñu réew dafa sakkan donc est-ce que ñun ñoo faloon Macky Sall est-ce que moom da liggéey pour Sénégal est-ce que gasulul Sénégal kàmm parce que tey dalatul xel ndax moom Macky Sall mu ngi bénéficier wu suñuy avantage bu weesoo li ñu ko def président de la république du Sénégal mais nous continuons continuer am statut ancien chef de l'état di fayee ko suñu salaire di lekk suñu ay indemnité sans compter privilège yi nga xam ni la ko Sénégal jàppandalal ci ay dëkkuwaay yu mu am Maroc yu mu am États-Unis yu mu am FANEN ak question bi mooy est-ce que le Sénégal juumuñu ci tànn bi ñu tànnoon Macky Sall kan moñu ñu tànnaloo ak lan moñu ko Sénégal ak Afrique missionnaire bu Macron ci Tugal te ngi jiite woon Sénégal question bu doy wax la xam nga ci wàllu yoon même yena takatel ndom ci ni Sénégal di doxé wo sax bo bayé takatel ndom

bidon doon soit démocratie ton am Gambie sans compter ni coup de taille am ci Afrique que les ay ak njitu rew bu Burkina Faso n'a di doxal ak lan lay est-ce que nous ñu est-ce que mon mo toujours continuer de mériter di jot suñu ay indemnité ak suñu ay ah ouais parce que dañ ko quelque part muy liggéeyal ñooñu mais te li tax recrutement bi teguwul ci yoon mooy daf koy jàppandal mu ami avantage yoo xam ne ko am ndax connaissance bi nga xam ni am na ko ci stratégie suñu réew réew bu moom boppam réew buy dem ak yoonu boppam foog ñu gën a vigilant gën a bàyyi xel démarche Macky Sall parce que doxalinam ginnaaw bi mu follee ko le sénégalais comprendre lan moo tax bët bu toj